جواز بتيجي لم يروح يتجوز gis émission boo xamante ne dañ ñoo sargal ñun waa Amazone mouvement dooleel Mbaye Dior mu nekk loo xamante ne nag lu ñu neex la ndax mën naa wax ne mooy première drapeau boo xamante ne organiser nañ ko fi bi ñu dalee inauguré stade bi ba léegi kon bu monsieur le defee nii lu mel nii def ko biir Ngoundiane ñu tëgg drapeau. tuddee ko Amazon am yi yaakaar naa ne loolu mbégte rek lañ ci mën a am te ñu ngi kontaan bu baax di jaajëfal jeunesse bi yëpp ndax lii bu amee jeunesse a ko def kon ñun loolu rek la ñuy défendre loolu la kon bu ñu nekkee fii aussi mbégte rek la ñuy mën a yëg. le promoteur ba tudd Amady di am ndax vraiment bi ma ko wooyee eh, waxtaan ceeg moom def ko rafet ñun xam nañu ñun ay ndaw lañu dañuy door a commencé nag vraiment eh, nit ñu baax lañ vraiment wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd wax nag dama ko mën a ndax yàlla xam nañ sama xol na leen yàlla jàppale lu ñu bëgg yal laa defal ma maire Mbaye Diop wax dëgg yàlla kontaan naa ko fi defee yàlla am moom wax dëgg yàlla eh, jàpp nañ ci bu baax ñu koy sant bu baax diyaar ci daj euh, dëpp gi grand combat bi Badou tey daa mel ni tey juróom-ñaari combat ñoo fi jaar tey Badou. waaw ndeysaan juróom-ñaari combat yëpp euh, jaar na fi. combat yëpp daanaka daal euh, bëre yu neex la. waaw bii mooy juróom-ñaareelu combat bi diggante ki nga xam ne mooy Nene Diarra bu ak ki nga xamante ne mooy Yaa Khady bu écurie Ngoundiane. waaw arbitre bi mu ngi noonu di wax lan lambu lan la bañ ak lan la bëgg amul amul amul door ci dox. waaw nee na ko. am ko am juróomi avertissement gis nga lu mu koy wax boobu nere jara mu ngi noonu boccu cumi kayam waaye ki nga xamante moy ya xadi tamit mu ngi noonu boccu cumi kayam bag war na mbam lu waay jooy daan lu waay doon jaay lee mu lamb salam lu waay jaay don doon jaay na lamb badu lu waay doon jaay léegi mu lamb waaw gante ne jara bu Cees waaw ak ya xadi bu Ngunjaan waaw xale ya ngi noonu ndeysaan waaw badu ki ah. nga xamante moy ya mooy Yaxadi bu Ngunjaan. ah 2 janvier 2022 la mujjee bëre fale ca Ngunjaan. fale ca fale ca arène nationale. fale ca arène nationale moom Yaxadi ñu lago ko mu ñibbi door mu daanu la defoon. waaw mais ki nga xamante ne mooy Nene Diarra tamit xale bi espoir u Thiès la. waaw ku ne ki nga xamante ne mooy ah, ñoom ñoom lay goote la. waaw mu noonu boot kaayam. oxo mu noonu Badou daa mel ni arbitre mu ngi waaj a sifflé arbitre arbitre bi muy waaj a soufflé na soufflé na combat bi ndeysaan diggante Nene Diarra bu ak bu ah Badou noonu ndeysaan mbër ñi dañoo neexoo ñoom ñaar Diarra moo moo ngemoo ngemul vaccin bi takk morso bu xonq ji waaw moo feete ndey moo feete ndey ni fetal ndeyjoor roxo ñaari xale yaa ngi noonu dafa mel ni suñ tampaloo mu jeex waaw combat bu gaaw lay doon badu ya ki nga xam ne mooy yaa xadi pied gauche la jiital waaw waa ki nga xam ne mooy nene jara pied droite la jiital waaw badu looloo am sengoor bu xonq ca bopp ba waaw waaw yaa xadi tak euh, sengoor bu weex ca bopp ba waaw waaw badu ndeyangel joonu la waaye xale bu espoir bu yeewoo Ngunjaan la nee la dimanche le 2 février le 2 janvier 2022 la géej arène nationale mu am victoire bu am am solo. waaw war mu daanu la woon mook mook total. waaye ki nga xamante mooy ah, ki nga xam ne mooy Nene Diarra xale bi nga xam ne ku ñu ko boole lekk mu nangu ku mu ñibbi xale Thiès la waree ah, combat bi soufflé nañ ko dix ah, vingt heures mooy attention ngi xëy ñoom ñaar waaye dafa mel ni ku bañ demagul dafa mel ni yaa xadi dafa aj dafa ba waaye droite ba su dalee rek ah naa la lamb dina sotti droite ba da koo aj ca Badu da ko acca kaw combat bi du yomb Badu combat bi du yomb diggante na jara moytu leen ma door mu daanu waaw waaw moytu leen ma door mu daanu moytu leen ma door mu repeelu moytu leen ma riñaan moytu leen ma nooñu moytu leen ma ah, ah. attention attention attention oh, oh ñu nga xeex nañu xeex nañu badu ñoom ñaar xeex nañu xeex métti badu xeex nañu ñoom ñaar oh, oh. Ah. arbitre bi leen mais dafa mel saako yi dañoo xaw a ndaw waaw dafa mel saako yi dañoo ndaw nee na am na avertissement jaara am na avertissement sortie délibérée sortie délibérée ah yaa xadi na diggante yaa Xadim Ngunjaan ah. ak ki nga xamante ne mooy Nene Jara bu Thiès fii dimanche février 2022 fii ci stade municipal bu waaw waaw mu nekk rek première journée bu Mbousnakh production fii ci Ngoundiane. waaw fii ci foog naa ni ñoo ko inauguré ca Bërë Dóor. Ah, Mbousnakh production ku ñu war a jàppale la. ndeysaan waaw xale bu bu ñu war a ñaanal la Badou. ndax dafa dafa am lu manqué woon lamu gox bi waaye dafa ñëw rek. ndax ah, bu ko fële. bu ñu gisee kuy jógee Dakar. ah di teg lamb fii ci Ngoundiane. dañ ko war a jàppale. waaw waaw waaw kooku mooy Mouzna production. waaye doomu doomu doomu tund bi la. waaye na ngi seetaan. ñëw TVS TV. Mhm. ak Salam TV. waaw waaw Phénomène TV Diobass TV. waaw Badou Mouzna TV attention. dina jara dina jara mu ngi bugg a xeex ak moom. waaye dafa mel ni dafa mel ni songo la bëgg. songo la bëgg. waaw ndax sànq gis naa bu ñu xeexee. umkosonge yakade dafa daw dafa daw dafa uh, daw sànni ko fële ñu rappelu arbitre atuwaat combat bi attention na ah ah ah ya hadi korose na ko ca ah badu ah, ah. leer na ya hadi daan na nene bu bu ya hadi daan na nene na bu ya hadi daan na nene bu waaw Badou kon gis ngeen euh, lii fi amoon tey Ngoundiane le 20 février 2022 journée Mbousnakh production ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal amateur yi di teew yëpp RTT TV eh! ah! waaw. Dóor daan na guy gi. Reug Reug daan na Gouye Gui kon donc en exclusivité RTT TV Salam TV Phénomène TV Diobass TV Reug Reug daan na Gouye Gui Badou waaw kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu nuyu ñëpp ah. waaw ñu ngi tegi téere yi ñu ngi tegi téere yi ndeysaan ku daanu rek ku daanu rek wéet ay waay waaw waaw gaa yaa ngi daanu yësi gaa yaa ngi daanu gëngri gaa yaa ngi daanu gëngri combat tey Reug Reug victoire de Yakhadi fils de Ngoundiane le 2 janvier bi passé la mujjee bëre fale ci arène nationale door mu daanu tey ñu gis Yakhadi fu génne jël bu rëy bu mu daan ndeysaan drapeau les Amazones de Ngoundiane dooleel monsieur le maire Mbaye Dione journée Gousnakh production yaa xam gara combat beeg nee jara daan waa jël. ñu nangu ko ñëw njëkk ak teraanga dañuy wax alhamdulilah rek di sant yàlla di ko ñaanal aussi ndam li jikko ñuy wax li yombul ñu ñu tànn ñu ñun ñu xeebuñu di ay jigéen. xeeboo xeebuñu benn yoon macha allah mu tuddee ñu drapeau bi loolu moom mbégte la boo xam ne xamuñu fu mu yem. Eh, ñuy ñuy ñaanal tam ki nga xam ne moom la ñu daan mu xam ne démérité wul ndaxte ndam moom suñu borom rek moo koy joxe. Eh, ñuy wax ñuy wenn nag suñu cofeel bu baax ci drapeau bi ñu kontaan ci torop di ñaanal yàlla moom mi nga xam doomu ngu ñaan wax dëgg sa yàlla yàlla def ko roi des arènes ndax xam naa ne gëm-gëm bee ngi ndax gaynde la dëgg la te nee nañ nag séeréer bi na séeréer séeréer tafa chaque jour gaalo loolu mënu wax ci parce que on est fier d'être ngu ñaan allah ñuy ñuy ñaan yàlla yàlla defal ko mu nekk ay ndam ndam ndam ni ci a yokna ay ci tor nun netelo a le nu jebo fi ode ala nun fi ode fop nun jangotan nun garo mofo bro roga dogal champion ne Ngoundiane a jangin xa ka defu yoonu waaw maaga um lem ka alhamdulillah rek mhm. gina gena lembelo yingo o yindelengole o ne in mhm. fop kama Ngoundiane ama rek e i content trop nak vraiment den le tan tina in mhm. parce que gem lem mandiki rek na pafal tem matin kana sereer moy euh, ni ka in weke refna rewi xefo to i ɗeto chaque jour o tewo refat tiñonkor o ten tatana ina ne ta ina drapeau i sante ana de bu baax euh, cofeel na ñaana naa tin tamit te continuer ba macha allah. merci euh, mbir ne aussi i ñaanana naa te roi des arènes. mbir ne folee ah, aussi i ñaanana aussi. Euh, ba ba découragé. xani mhm. xani wo feeto kenn du foofu. macha allah i kontaanoo trop trop. i kontaanoo parce que aussi drapeau ni te yokk na Kamangu Njaan mhm. ñeppa anda ɓino nguñan ka buga sahum to genole mbel o numangue aussi soleke rek numa o laana il faut que o geñole ngole ite inwe we genna nguñan te ref vraiment mbektene anone wagero anone dayna sax machallah jërëjëf i contana merci jërëjëf coro jërëjëf merci beaucoup a felaya faxaya mo say sidi a rangoji golem kade i congo wala i kaɗo den mbirne ɗeti rek no xana content euh, mhm. di content di nuy wangu ñaan yëpp mhm. vraiment euh, félicité à ya xadi vraiment yi jigen mbégte bu baax parce que mhm. bi ngay bëre yi concentrer bu baax den commandé mhm. di la ñaanal yalla jam parce que bu ya la jam rek fi nga egg bu nga bëgg egg di nga fa egg parce que igé détermination igé né ne bëgtoon na njom nguñaan tuuxee ci njuuf da nga bokk si yaakaaru nguñaan yi mhm. comme ñom ngal jon bu daara ñom ñep ñom galo ñoom libidoor vous êtes des fils de nguñaan da ngeen wara gor goru nek ben nek ben bolom fi suñu stade la kon li ngeen def tay fi da ngeen ko yello ñu and ak suñu jigen ji bax yi yu rafet macha allah ñu tudde len bes bi ñu ñew dolal len and ak suñu grand Cheikh Sène ñom Fallou Sène ñun ñep ñu ñew taxaw andal euh, euh, délégation bi nga xam ñoo ñew fi Amazone yi di xamal ne itam nguñaan nguñaanu mbañoon la nguñaanu Amazone yi la na suñu mbeur yi nga xam ne ñoo nekk bokk écrit nguñaan ñu ngi seen ginaaw tay ñu ngi seen ginaaw suba ya xadi ñu ngi contane bu baax xamante wuñu mais ñu ngi gis li ngay def bu baax te loolu moo ci am solo di la conseil nag nga gën a concentré wu xam nguñ ñaan ñu ngi sa ginnaaw na nga gën a góorgóorlu tey yow la yàlla àndal ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ci lépp li nga bëgg ci sa làmb ci sa carrière suñu borom gën la doole ngeen li may wax euh, kii fay Mamadou Faye mooy Mamadou Faye waa ngu ñaan yi nañ gën a gëstu seen i doom soo xam ne seen i doom ay champion lañu ñun dañoo bokk Sénégal te dañu war a jàppale xale yi comme maire Mbadione nu muy defee képp kuy autorité ngu ñaan war nga jàppale jeunesse bi parce que ñooy suñu yaakaar ñooy lépp ngu ñaan lépp doomu Sénégal yi am am na ngu ñaan fii ñun lépp am na fii. jërëjëf mais jox ma bi dina jox ma micro bi euh, Sidi am yóbbante boo xam ne bi dañ koy yóbbante ci conseil municipal bi. Euh, bëgg ñuy yëg ne stade bi yaakaar naa football bokk na ci waaye lamb bokk na ci bu demee ba métti ci lamb ji danañ ko wax bu baax haut dañu yobante nak ndax xel nenañu nañu cell wax la la bëgg wax estade bi pour ngunjaan gep la ak liko wër ñu bëgg ak nu mu mën a ak fu mëna nek a ngeen def seen xel ci ne lamb ji ci la ndax def ngeen xel seen xel ci lolu euh, lolu amna def nañ suñu xel ci loolu euh, ki nga xamne moy monsieur le maire mbay Dione euh, si mbaaxam si leppam si bëgg ñaan mo tax mu gorul li am kon lépp loo xam ne war na ci jeunesse bi nañ def suñu kémp lay kattan bu nekkee loo xam ne war nañ ko waxtaane nañ ko waxtaane lépp nu mu gën a oyofee biir ngu ñaan rek bu ñun ñëpp mën ci jëriñu parce que stade bi pour sport bi la sport boo ko waxee lépp mu ngi ci biir te mënuñu dem bay làmb mënuñu dem bay football ñun ñëpp benn lañu kon dañ def suñu képp lay kattan gëna bay xel jeunesse bi gëna bay xel euh, suñu espoir bi nga xam mom moñu mom moy lamb ak football loolu nañ ci waxtaan bu baax ci conseil municipal bi inshallah merci jërëjëf Sidi euh, fada o yoon fada o chamine den jigeen bi andoona xale de yonto ndiki igaro den mbirne tarif euh, ya ref Iya Khady Iya comme ren signature na ki ge o la nene jara ɗomu te safoo te bëgg doxane waaw ah, bisimilah tourné ni jublu ni bisimilah maa fi waaw li sant ñëpp bàyyiwuma kenn sama kër su njaak saara wu ma fayam Dakar la jóge ndax man kon lii rek laa ko mënoon fayam mhm. ak lu ñuy daj egri bu ñaan tamit aussi mhm. bu dul keneen tamit mën nañ ko defaral di sant ñii jigéen ñi sama yaay la waaw sama yaay la sama lépp la mhm. mbay yoon tamit monsieur le maire jàpp na si combat bi mais victoire bi dama koy may sama papa sama lépp sama mag muy Ablaye juuf ñu bari gan ko xam si Ablaye Boukou victoire bi moom laa ko victoire bi moo ko moom ndax mag la fu ñu jógee moom day jóg parce que suñ bamba dañoo rus sax gëstu di ko xool mais victoire bi ñu ngi koy may bu baax di sant ñoom ngel jon moom ma seen fay njaag saar sama kostu juróom ama egri ngu yaan gi yëpp bàyyuma kenn man maay kontaan si ñëpp samay supporter fan si kolo bi yaa xat yi aw ma seen fay billaahi yaa xat yi tey nekk ouverture stade bi ndax ubbi woon nañ ko waaye làmb dëgg tey la ci am yow nga jël drapeau bi ci Ngoundiane gi yow loo yëg foofu li nii yëg naa si lu bëri ndax lii histoire lamb la mhm. histoire lamb dina ko bind ku njëkk a bëri fii grand combat ñu ne yaaxat yi mhm. moo fa njëkk am ndam lii rek doy na mais maay sant ñëpp sama grand yi kenn desul gannaaw barki suñ bamb sama papa yi ñu fa des kër ga ñoom ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di ñaanal sama maam caaj koor laatin mu gën fa yàgg. di ñaanal ñëpp. man de dama kontaan. waaw ndax dina pare ñaaw pare na pour ñëw rajo Ngoundiane euh, samedi incha allah. non man lamb loxo foo leen ma woo rek pour lamb rek. ayca nañ joxe drapeau bi merci beaucoup jërëjëf yaa Hadi Biram noonu ana promoteur bi. xam nga gëlëm gëlëm gëlëm ku ko yónni gànnaar yaa ko ñibbiloo. dëgg la man xam nga mënuma wax ci yaa xam mënta na. dëgg la. lu may bëri wax yëpp wala mun ko. wax ci moom day jafe. waaye loo ci mënti dégg sant nañ ñëpp. Mhm. Euh, jox naa Ablaye Bouko Euh, ndam li dëgg la histoire dina ko bind mm-hmm. doomi Assane Tani moo fi njëkk a bëre grand combat mm-hmm. gagné fi drapeau danañ ko bind mm-hmm. waaye dinañ bind koo xam ne moom la Issa Magat doon coaché Issa bu ndaw laa la waxuma la Issa bu mag Issa bu ndaw nekkoon ménagem fii ci Ngunjaan mhm. daan bëre gulox saar ba bàyyi bëre mhm. topp ci ginnaaw xele bi di ko jàppale guddi ak bëccëg jërëjëf loolu kooku duñ ko fàtte bu ñu waxee turam rek wax nañu ñoom Moussa Faye ñoom Galangueer ñëpp daal ci gàttal mhm. bu ñu waxee Issa rek ñoom ñi daan bëre ak ñoom ñëpp wax nañ ko waaye Ndiak Sarr jërëjëf merci xam nga Mamadou xele bi dafa ñëw juddu fekk ngem ñu aj ko mu ñëw aji ko tàkk ko lu leer laa la wax. Ndiak ana na ñëw Ndiak. Ndiak ñëwal deux minutes rek parce que dama yem foofu waaw baax na merci ana Ndiak. yow moom dama laa mere parce que danga nga jiite écurie Ngoundiane noo am man xam naa. dama laa woo rajo Ngoundiane ay yoon nga lànk mel ni ñeme woo ma looy ragal ci man. non lankuma maa ngi jégalu. Ah. problème de emploi de emploi de temps la rek. Mhm. xam nga jot bariwul donc. tay moy sama première fois pour ma ñew ci Ngoundiane sétane ci lamb sax mhm. té ku ne xamna sama diggante ak boy mais jot mo yombul quoi mhm, mais nak vraiment mhm. duggu ci bima fi duggu ci neex na ma trop puisque premier grand combat fi ci stade bi ikri Ngoundiane gagné ko donc kon té ikri Ngoundiane ñi ngi bëré ay millions li ma dese mooy roi des arènes kon donc nañ ma ñaanal yalla rek ñu am roi des arènes loolu rek mo am solo quoi parce que ñi ngi avancer bu baaxa baax jërëjëf jëf ma ngi sant ñepp merci monsieur le maire mbay Dione ma ngi xaar FM nag non dina ñew inshallah allah ok acha, jox leen drapeau bi jox leen euh, yaa xadi drapeau bi waaw acca alaaji jàng jàngi voilà kontaan na ñu kontaan na kontaan na Jawa Zero TV, Namiro Adios.